yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf intifada ga woon ca Mbàkke keroog àjjuma ñi ñu ci tegoon loxol libération nee nañu tey ji la ñu xam lu yoon dogal ci ñoom yéen bi nañu juróom benn fukki doomi aadama ak juróom lañu ñeenti élève ñoo nga démb ci altine ji ca lañ leen defere woon ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñoom police bu Mbàkke ñoo leen defeere fanweer ak juróom-ñeent ya ca des police su moo leen defeere a defeere waat ndax démb demoon nañu tribunal ñu naan retour de parquet tribunal nañu juróom benn fukki doomi aadama ak juróom lañu jege nañu lool dem ko sa journal bi mi ngi ñuy waxit li ñuy Serigne Assane Mbacké ak compagnie bokk na ci bokk ci manifestation bu ñu autorisé wul yàq alalu jàmbur ak defi fitna jëmee ci takk der yi fukki nit ak ñaar yi ñu jàppoon ci cité kër góor gi keroog ba yoon wooloo Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko sour soi mi ngi ñuy wax ci xëtam mu njëkk ne ñooñee alxames ji di ñëw fukki fan ci wéeru février ci lañ leen war a àtte ko Abdoulaye Kébé nee na moom ba ñu koy jàpp xamul woon sax lan moo xew ay ñoom la doon dem xamul woon sax nay manifestation am nañu ci cité kër góor keneen ku ñu naan Matar Cissé moom ba ñu ko jàpp jàppee dane ab journaliste bi ñu koy jàpp ci la carte de presse am réere ginnaaw bi mu ne bés bi mbir yi amee ci la waroon a dem déposé dossier ngir mën am carte de presse nationale gaay yi Pastef yi ñuy alda aldee ak di leen jàpp ci réew mi témoigné nee nañu waa Pastef ñoo ngi koy naqarlu bureau politique national bu parti Pastef ñoo bind ab leetar kuréel yi xeex ak ak yelleefu doomu aadama ci réew mi ak société civile gi di ci ñaawlu ñu ne noonee la nguurug kalaame ni ñuy def seen militants yi li leen mitti ñoom waa Pastef ba tax ñu bind société civile gi Sud Quotidien nee nañu bokk na ci fu ñu fàkk bëgg faa defi manifestation ñu aayi leen ko boole ko heure bu ñu xëyee dégg ne am na kenn ci ñoom ku ñu jàpp jàpp leen journal L'Observateur téye ba mu dëgër ñu xooli xibaar bi mu xëyee ubbil yéenekaay bi déggoo mu di convention gi dox ci diggante Sénégal ak France jëm ci doomu Sénégal bu defug léexóor ca ko ko wala doomu France bu defug léexóor ci réew mi bu ko waa France soxlaa Sénégal jël ko yóbbul ko maanaam extradition yéenekaay bi nee nañu bees ministre affaires étrangères bu Sénégal di maître Aïssata Tall Sall porte na projet de loi bi keroog ca ndajem conseil des ministres ba woon ca kees léegi nag yéenekaay bi nee nañu président Macky dogal bu Sénat bu France la cay déglu maître El Hadji mi ñu war a déglu ca kanam conseil de discipline bu ordre des avocats du Sénégal source wa am na lu mu ci gis la mu ci gis moo di ci avocats yi war a gise maître El Bamba Cissé ci la bokk te moom maître Bamba Cissé mooy coordonné pôle yi war a défendre Ousmane Sonko diggam ko du maître Bamba Cissé rek ñaari avocats lañu ñaari avocats yu bokk ci conseil discipline yi war a déglu maître El Hadji Diouf te ñoom ñaar ñëpp ci avocat Ousmane Sonko yi ca la ñu bokk bokk nañ ci li ci journal Le Quotidien gis moo di bu ñu suspendre maître El Hadji waa saareen jommi ndax bu boobaa Adji Sarr dina ñàkk principal avocat ci ñi koy taxaw ñi soxla ñi leen taxaw dëgg direct ci news nee nañu ñooy liggéeykat yi ci hôtel yi réew mi ndax nee nañu anam yi ñu liggéeye baaxul la ñuy fayee ko weer wu nekk na la ko yàlla nëbb lu bari ci coono ak ñuy dund nag yéen kay bi nee nañu patronat bi lañ ci joxar bi baaraamub tuuma njëkk ne liggéeykat yi ci hôtel yi réew mi mere nañu patronat mu bu rëy ci bésub tey bii mooy bés bi ñu jagleel ñiy bëggante bésub Saint-Valentin journal bés bi le jour xëy dem seeti ñi amee laago di handicapé di ñu wax nan la ñuy dundee seeni sëy